waaw seetaan leen. Mm-hmm. sama xol sedd ci ñoom lool. Mm-hmm. ndax eh, doon nañu football démb. Ah, waaw football mm-hmm. eh, nit ñi nag yu sunu borom la in shakartum moo ñu dul dal. suñu bàkk. Mm. Cameroun ab équipe bu mag la. waaw ah, bu mag sax nag. bu mën a football. di nu gaño saa su nekk. nu gaño ko démb. waaw. daañu xëy ne. Hmm. Aliou Cissé xamul dara. baat boobu li ñu koy def ci noppam bii waaw ñu wax ko de Aliou Cissé moom ba mu dooree ba léegi xamul dara lañ ko wax ba mu andi coupe d'Afrique. léegi ñun 1960 ba fii nu toog. waaw ñu ngi door a am coupe ñu ngi door a ki koy indi rek saa saa su ne xamul dara lañ koy wax waay waay loolu nga firee la in shakartum la asidanakum. du kay doon waaw. <laughs> maanaam ñun dañ du sant daal. <laughs> tey bu doon koy gedd mbaa muy yëf. waaw déedéet moom gedd ah, yàgg na. moom kay moom dong ñu su ko defee ñu indi fi tubaab yi waaw. ñuy tuur suñu reer yi. waaw di leen di ñu fay xaalis bu bëri. di yëkkat suñu jaar yi <laughs> di yóbbu suñu xaaj. buñ leen meree di xul duñ xam lu ñuy wax xam nga loolu rek daa metti Alioune Sèye sax xam li ngay wax <laughs> tubaab bi ba suba duñ xam li ngay wax. dégg nga <laughs> dañuy ñibbi. waaw dem bu ñu dem ndeysaan bu ñu demaan ba quart de finale. waaw ñuy calculer. waaw bu mal Mali dóoree Guinée. waaw su ko defee ñun ñu génn ñun balaa dara xew ñu lóor toog. ndeysaan. am de dëgg la. te itam démb ni gor yi doon def. waaw dañ doon dañ doon dégg naa teg nañ bal bi ci suuf de oustaz. di di ko di ko ko kii. man kay sama saal. Ah. sama fauteuil bi laay indi jàkkaaroo te kii bi nii. ak max bi. waaw. ba. ba mu jeex. da mu jeex. bu jeexee. Hmm. tabarkalla donc nga gis ne. Hmm. ni ñu daan ni ñu daan def. Hmm. tey def nañ nu ko raw. paasante nañ jolli. dëgg la nag. Euh, nëppe nañu ay ay ay. ay occasion raté nañu ay occasion mais kii dugal mooy raté. Mhm. kii raté mooy dugal. dëgg la de moom. Mhm. mooy raté. Mhm. kii raté mooy dugal. noo jàngate coupe d'Afrique bi ñu bi nga gis. Euh, gannaaw soreetu. wóolu wóolu sama équipe bi rek nag. jàpp nga ne mën nañoo de mën nañoo. man daal ba ma dóoree Brésil. Ah. laa jàpp ne ku ñëwati mën naa laa dóor. comme ñun ñooy champion champion d'Afrique. ñoo yóbbu coupe bi. jàpp nga ne dañ koy indiwaat. maam góor gi Njaay nee na. Ah. bu daanoo daa jóom <laughs> mais yow est-ce que est-ce que gis nga ay failles yoo xam ne mën nañ cee juum gisoo ci ak màggataayu yenn sóor yi wala. wala ah. wala système de sëb bi wala lan oustaz. màggat mën naa ba ci ci ci ci ci dëkk. <laughs> waaw. Mhm. gis nga Sadio ne xaw naa màggat. waaw. Cheikh Kouyaté xaw naa màggat. Mhm. du dëgg. Mhm. waaye. ak ak ki sant Guèye. waaw ñoom gànn Guèye. ñoom gànn Guèye Idrissa gànn. waaye. waaw <laughs> démb de Sadio def na fa ñetti rëcc yoo xam ne. Ah. jar na mu jege la nga may ko juróomi junni. déet waay maa la ko wax. rëcc yu yéeme <laughs> wala. am <laughs> dégg nga. Edouard mhm. mi ne woon jeexal na. moom la teg ca camp kii na def na max. tabarkala. Mhm. ah am kii de. ah waaw mooy max bu góol bañ a dugal sama gars yi ba demee wut sëriñ bu leen xool. loolu leen wax ne ana góol bi <laughs> mu ne maa ngi nii mu ne ko lu ñëw jàppal dara du dugg <laughs> loolu doy dem sëriñ <laughs> waaw doy dem sëriñ bi waa ji daal loolu la leen wax moom doy dem sëriñ sëg wax dëgg yàlla bu ñu ko préparé li ñu ko war a paré mm-hmm. Mm-hmm. Euh, def ci li ci war lépp mm-hmm. mën nañ koo jëlaat indi ko fii ndax fii na suñu loxo la nekk te it équipe bu nu jaaxal nekkagul ci équipe yi ndeysaan ndeysaan poule bi métti na ndax ñi ñu dëkkal. Mm-hmm. métti na ndax ñu dëkkal. ñi ñu dëkkal ndax Gambie moom. Mm-hmm. bu sañoon. Mm-hmm. lu mën di xew moom. na tuuma Sénégal. waaw ñu ne suñu dëkkandoo yooyu oustaz ni ñu nar a def ak ñoom. ah loolu loolu mooy dér bi loolu ñu daan tuddee bi ah doy na waa de jege nañ de yii football daa am loolu ñoom Gambie xam nga ñooy mbokkaa ñoom ñoom grand yi leen ñooy boo mësaan fekkee nawetaan <laughs> waaw maxi derby ñun xam nañ ci dara <laughs> léeg-léeg nga jógee stade xeex ba sa kër waaw <laughs> maxi moom tàmbali gi rek problème la takkum drapeau yeeg peintre miir yi loolu nag mooy su dëgg te ñi ñi ñu dëkkal nii Mauritanie ki Gambie ki dëkk yooyu wallaay mooy suñu yëf waaye nag wax dëgg yàlla ah bu ñu demee ba dem rek mhm. eh, nu génn ca mooy gën a yomb. ndeysaan yàlla nañu cee génn. amiin yaa rabbal alamiin li xaal liñ liñ man de liñ mën démb dal na sama xel. alhamdulilah en tant que sportif. alhamdulilah euh, dal na sama xel. ci wàllu googu. su ma su ma su ma suma ma Aliou si jege woon tam dama naan ko mu liggéey ci wàllu euh, raté yi gone yi di raté. Ah. dafa am bal boo xam ne boo ko jekkoo day am kenn ko la gën a jekku. waaw bul ko dóor yow jox ko mu dóor. Mm-hmm. dëgg la. dëgg la am na ñaari occasion yoo xam ne. waaw fexe ba yëf yi am appliqué daal di am finition. bi saar jege see ba nga xam ne def ci rek a ko des. waaw am na ku taxawoon koo xam ne kii heure sotti wut tey mën na ko dugal. Mm-hmm. te bu dugalee yéen a koy bokk jox ko mu dugalal la waaye xam nga léeg-léeg léeg-léeg. waaw tàngoor wi ngay demee. Mm-hmm. moo lay moo moo la dul may. nga passé waaw loolu nag course da ci liggéey ak entraînement. très bien mm-hmm. parce que di daw booleeg passé dafa yombul. yombul de ah ko Sadio Mané ma waaw. ah yombul daw xelu xeer. Mm. ba pare passé yombul. Mm. <laughs> da da ngay jéem wàññi li ngay daw pour passer. Mm-hmm. te boo ko wàññi pour passer mën ngaa mën ngaa mën ngaa weesu fi nga ko waroon a passer wala placement yi mën naa soppeeku. ndeysaan ndeysaan merci. très bien vraiment am na solo de parce que man max bi sax seetaanu ma ko man la cee posé question yu bari. mais dégg naa penalty yi lañ gagné aussi kon kon Sadio mi ngi mën a dóor penalty yi léegi. tabarkala moo ko dóor. bii sax de da ko dóor force boo xam moom daa way nag Sadio ko way la. xaw kën la tudd xaw <laughs> ca la ko def. <laughs> ndeysaan ñu ko ci xuy ba kaa yi jóg. Mhm. waaw ndeysaan waaye suñu bàkkee. Eh. gis nga bii. waaw. dañu ne woon pële. waaw ban bii moo gën a rafet. Mhm. mu ne bi arbitre accordé. Mhm. boobu de rafet na. ca wallaay kii soxna Yacine Niass mi nee na moom problème am mooy oustaz fan la xamee football <laughs> oustaz loo koy tontu. dégg nga. Hmm. la. fu ma toll maa ngi koy seetaan. Mhm. trois pratiqué naa ko. <laughs> <laughs> ce que pratiqué ko. ah oui ah ndax. Mhm. keroog suñu demi-finale coupe d'Afrique ba. Mhm. bi ma eh, Yacine Mar wooxee. waaw. <laughs> ma noo ngi nii di bëgg añ pour dem stade. dañoo dégg seen waxtaan bi ak suñu mbàkk si la. ci. Eh, waaw Alimran TV. ndeysaan ñëpp ma koy envoyé. wallaay ndeysaan. mu ne ma nag leel neel sëñ Mbàkke si la. Hmm. buy laajee Alioune Sall na ma ko laaj. Ah, mu laaj maanaam ma laaj ko moom yow mu wax ma yow yaay kan. waaw kay def ak bal bi. très bien waaw. mu Yacine Mara. waaw ah, parce que lii lii moom xam-xam la waaye am na am na xam naa lu ci nekk daal. parce que doon ci expert ci football moom ñaare ñi koy def day fekk ñu ma cee jaar daal ah. waaw c'est comme ça <laughs> pratiquer naa ko. pratiquer ko waaw macha allah. te mbir ñaare boo ko bëggee ba noppi pratiquer ko. Hmm. léeg-léeg xam ca daal daf lay yomb. dëgg la ndax man daan naa géwal Cheikh Sakho fii ci Sacré Cœur. Hmm. boobu xawma ndeysaan Baba Touré géewal naa ko xamuma. ndeysaan. kasam ndaw. waaw. <laughs> ndeysaan mu ngi noonu. ndeysaan ak ki gaañu bu yàggut. Euh, Joseph Koto. Joseph Koto ndeysaan. parce que man de man Gia. Mm-hmm. dama ko daan supporter. Mm. ndeysaan. waaw ndeysaan moo tax dama daan jog dem seetaane. Mm-hmm. léeg-léeg su ma nekkee Médina danaa seetaane jaraaf. d'accord waaye dama ne. boo xam ne da ngay dem dagg bi toog ci kaw stade bi. waaw ci ci ci ci. waaw stade toog tribune. ba ñuy dóor la promotion ca Giacassa. waaw mi ngi ma fekk ma toog. Mhm. ndeysaan. bañ bañ naan euh, bokkaande duutu fi footballé. waaw. te réew mi duutu footballé ndax li nga wax président duutoo ko wax. Mhm. xam nga loolu moo tax ne suñu président yi du ñëw si final yi. dëgg la te loolu normalement war nañu ko defaraat. dëgg la xanaa loolu nam ma nga ko de dem dem stade toog seetaan football. lool. <laughs> malheureusement ndeysaan malheureusement kay eh, eh, da ngaa yaakaar fi boo ko doon nee naa la kat boo ko defee. dañuy seetaan dañuy yàq sama seetaan. yow la ñuy seetaan kay. waaw <laughs> oustaz daa seetaan si. <laughs> gis nga may nekk fi ci golf. waaw su ma solee sama jokkin ñetti paa laay daw rek. waaw oustaz defal ma ñaan man man hmm. damay sport. ndeysaan damay tàggat yaram. ndeysaan oustaz defal ma ñaan oustaz defal ma ñaan. ndeysaan damaa defee ne boo fa demoon ba moytuwul. ndeysaan seetaan yàq li koy seetaan mi naa yàqu de eh, moom kay léeg ma ne xam naa ne oustaz dana nam mu dem stade ak dem Mayga surtout boobu. Euh, dem may wax ko ci suuf ndax ndaw ko daay ba <laughs> xam nga may ga dañ commencé xewil mais dafa neexoon. waaw non ne ma la melatu ko. may ga pour mu defal la nii kuddu gi. loolu nag jarul na paas. di yëngal noonu muy xoj-xoji noonu. xam nga déet ñoom duñ ko yëngalee nii dañ ko ci dañ ko ci sokkali loolu rek jarul na paas. wallaay ndeysaan cey. waaw loolu rek jarul na waaye fi ne ñi ko doon def. am na ci ñu dem. ñi fi nekk am na luñ man mais mëntuñ ko boobu nag. kon réew mi dafa neexatul oustaz wala. yu bëre ngi soppeeku. xamoon mm. nga ku ñu wax coon Seck. coon waaw. nee réew mi jën yu mag yi dem na. Mm-hmm. ndeysaan. nee na yaboo yi rekk fi des. ndeysaan oh. te yaboo yi daa bëri yàq. ndeysaan ku muy wax jooju am na balaaxa. daa illee kenn na xóot na de. xóot na xóot na. loolu alxuraan daf ne. sullatu mm. minal awwaliin. loolu mm-hmm. ca teg. wa xaliilun minal aaxiriin jeex na. oh ndeysaan. nga xam ne yenn yeexoon yëpp dañ koy fàttali ko mu naqari. kañ li ñu amaat am Ablaye jaw mu nekk ci stade. ndeysaan di reporter. di la wax la fa xew. nga xam ne sa télévision. Mm-hmm. danga koy danga koy mit. Mm-hmm. di déglu Ablaye Diaw. wallaay rajo bi dàqal la télé bi. waaw ah. ndeysaan est-ce que. du dëgg. Uh-huh. ci ci ci ñoom ña daan def yooyu ñoom Samba Jabare amatuñ leen. Mm-hmm. ñoom Serigne si. waaw ñoom Nangam. waaw ñoom Oustaz waaw. ah dëgg la barxam jo fu ñu koy jëlee walaay walaay Oustaz Moustapha Guèye et cetera walaay walaay yal na nu yàlla yërëm amiin loolu doy na waar hmm. xaw ma sax ginaar nii dafa gën a yomb léegi wala déet mais daa ne gënoon naa neex moom it waaw déet ginaar daa yomb léegi parce que lekk naa ginaar rek événement la wala lekkatul ginaar léegi li ñu lekk lu ginaar kuy bàyyam <laughs> maanaam ginaar gu amul bàyyi wax nga dëgg de ginaar moom danga daan wax sama ginaar gi day nen. waaw ñu naan day boof ginaar gi tojtal na. waaw léegi loolu amatul. léegi ginaar yi amuñu baañ <laughs> dafa lu ñu lu suy rek ñu nen. kon de luñ fabriqué la mu tudd ginaar waaye du ginaar. Ah. Ah, du du keroog Sall Mbaye yëkkatee ca ca rajo ba. waaw danga ne ko naanal nen waaw. nee na naan na ñaari tablette. dara baaxut ci ba léegi baat baa ngay naqari. ma ne ko ma ne nag parce que naanu ne li li ngay naan amul bàyyi. waaw dëgg la de mu ne ma. wallaay Oustaz wax wallaay ak tëng gu toll ci nen. waaw nga xam ne ginaar gi da daan am cuuj ñu may la cuuj nga takk ci morso. cuuj boobu jural lay ginaar amal lay ginaar gisoo xale fi damay wax ne. Hmm. ku ci yor daara. Hmm. yor gone. Hmm. defe ne gone yi ñooy gone yële. Mhm. booy dóor muy dee. dëgg la de wallaay ñun li ñu daan woon yaakaar naa ko woon xale yi ñu faatu. dañ faatu. <laughs> parce que xale yi ganaar yi ñu lekk ak nen yi. Mhm. bokkut ak xale yi la gën a daan lekk ak nen. tax il faut nit mbir mi. effectivement nga jàng ko loolu moom loolu moom danañ ko beral waxtaanu boppam boo tukkee ba ñëw. <laughs> boo xamante ne il faut ñu jël yi ñu amoon. benn par benn di ko méngale ak tey. incha allah itam nit day am dara ñàkk ko te ñàkk na ko. dëgg la fekk turuwaa fi des. dëgg mm-hmm. ñàkk lépp dëgg la xaasiru am fu saw. laa ko faral waxoon fekk perte na ñàkk na boppam. ñàkk na boppam wallaay ndeysaan wallaay. wallaay jërëjëf Oustaz jërëjëf sëñ Ibrahima faal